الحمد لله الملك الديان الكريم المنان خالق الإنس والجان وغافر ذنب من استغفره مسعب الخير في شعبان أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الناس قد علمتم أن الموت قريب والرب رقيب فما التسويف وقد مضى العمر وأنتم في تيه الغفلة تلعبون كم تسمعون المواعظ وأنتم عنها غافلون واعلموا أن شعبان قد أظلكم بأيامه الكرام فأكرموه ولو بثلاثة ولو بصوم ثلاثة أيام وتوبوا إلى الله وقدموا بين يديكم صالح الأعمال ولا تتبعوا خطوات خطوات اللعين الشيطان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى قال جعلت فيك قراءة القرآن bokki jullit yi maa ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ di ko sant ci xéewal yu mag yu bari yi munu defal xéewal yu bari bari waaye boo xam ni ëpp na ba mu waxal nu boppam ne bu ngeen ko doon jéem a takk du ngeen ko man lu mu yàgg yàgg yàgg lu ngeen wàññi wàññi du ngeen man na man man xéewal yi ma leen defal yi ma leen la jéem koo wàññi waaye benn boo ci jëloon benn boo ci jëloon boo doon jaamu yàlla sa jiiru dund doo ko sant doo ko mënoo doo matale sant ka babal xéewalu bët képp euh, xewalu bët képp fab ko mu defal la ci leer ngay teg sa tànk fu la neex di dem te laaju la ci dara tegu la ci dara te bu fekkonte ne dara sikk na ci ba nga dem te sa moroom doomu aadama ne ko defaral ma ko du ko mën dey jéem te dana la ca teg loo xam ni amaana doo ko àttan te boo ko àttanut sa bët yàqu bàyyi la sa bët yàqu moom mu defal la ko nga di ko dund sa giirub dund dara sikku ci dara mettiwu ci fu la nee xool te laajule ci dara kooku benn boobu képp boo ko doon jéem a sant doo ko mën nu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni xéewal yi mun a defal benn la ci xéewal yi mun a defal donte mooy bi ci gën a màgg waaye benn la ci te mooy bi ci gën a màgg ndax moom moo tax mboolem xéewal yi munu defal nu man koo jariñoo ba mu mën noo jariñ tey jariñ mën noo jariñ ëllëg te budul woon mooma amaana bu nu jariñoo tey du nu jëriñ ëllëg kon moom mi tax xéwal yu nu yàlla defal nu mën koo jëriñoo mu mën noo jariñ tey mën noo jëriñ ëllëg yàlla na ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam di bàkk di kañ sunu jàmbaar ji nga xam ne Cheikh Ahmadul nga xam ni moo sacrifié ab dundam sacrifié ak njabootam sacrifié alalam sacrifié léppam ci lislaam ngir daggal ko buumi gàcceem ba sunu borom may ko ndam mu daggal islaam buumi gàcceem yëkkati ko ca kaw fompal koy danga ko ba kii waykat wu mag doon na wax ni bi sëriñ bii ñëw booba islaam ba si islaam di jooy xàcc ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel na làmbaay lépp ñépp xam nañ ne noonu la lislaam meloon ba mu ñëwee moo ko delloo si fompal koy danga ko yëkkati ko teg ca kaw te kenn mënatu koo daaneel jaaraama kooku yàlla na ko yàlla fayal bu nu jàllee loolu bokk yi ni ñëw wax di yow di waxtaane benn tomb bu yaatu boo xam ni tuuti lan ci laal tomb bi nga xam ni mooy li gën a yitteel tomb bi nga xam ni mooy tax àdduna jag mooy tax àllaaxira jag tomb bi nga xam ni mooy mooy mooy neex mooy mooy baaxal mooy neexalub dëkkandoo tomb bi nga xam ni mooy dëppale diggante nit ki ak njabootam tomb bi nga xam ni mooy neexal diggante nit ki ak dëkkandoo boobu tomb mooy wan mooy jikko te mooy tomb bi nga xam ni moom rek moo tax yàlla yónni yonent yépp sallallahu alayhi wa sallam mi mu yónni ci noonu wax nu li tax yàlla yónni ma mooy mottali leen jikko yu baax yi innama innama la wax innama waxul ne bokk na ci dafa wax ni moom rek moo tax yàlla yónni ma innama bu'istu li utammima makarima al axlaq kon jikko rek a tax dafa jikko dong nga tax yàlla ko kon ñoo xam ne jikko lu am solo la moom rek moo am solo julli yi woor yi aj màkka yi natt asaka yi jëriñu lu may defal xol defal xol muy jëf yoo xam ni bu fekkoon te ni du lislaam nit ki da koy rus ndax day wayaf moom sëgg ak siggi ak wëru xeer ak toog yenn ba suba ngoon jot lekkoo yooyu bu dul woon lislaam kenn du xam njariñ li da nga koy rus jaahiliya dañ ko daan rus loolu nag mu teg teg la ko di la ko def loo nga di ko def di ko tàmm ba sa xol ba sa xol leer ndax xol saa su nit ki defee tomb bu baax benn jëf bu baax day defuk leer dem ca xol ba bu yàggee xol bépp day leer naka noonu safaan bi bu defee ah, bu defee ab safaan wala mu wax ko day def toom bu gàkk na toq ca xol ba bu yàggee day kaste xol ba leer duut ci dugg wal iyaazu billaah bu jëf yu baax yi ëppee nag bari di bari di bari day mujj xol bi leer naññ defaru te bu xol bu xol bu xal defaru jikko defaru xol rek mooy defar jikko loolu moo tax mu ne dañ may yónni ngir ma defal jikko yi yooyu yëpp ay pratique la yoo xam ne day dañ koo def ngir toj xol ak defar ko ak leeral ko loolu moo tax ba sunu borom wax ni kenn yomal xiyaam kenn du fa jariñu kudul illa man ata allaha bi qalbin salim waxul ku fa andi rakka waxul ku fa andi julli waxul ku fa andi koor waxul ku fa andi illaa man ata allah bi qalbin salim alqalbu salim nag yaa ngi koy jële ci pratique yi nga xam ne moom la yonent benn woon muy julleeku woor ak jëf yu baax yooyu ci nga koy def muy defuk leer di leeral sa ba sa xol baax sa xol set say jikko baax boo demee ci sunu borom mucc kon kooku rek moo am solo kon jikko yi nañ ko defar lu tumuranke nag ci jamono ji jikko yëpp yàqu na lu lu yàqu ci jamono jii nu toll jikko yi yàqu yi rek waaye su fekkoonte ne jikkoo yëfi sallallahu alayhi wa sallam andi woon mi ngi fi kon dara du yàqu mbokk yi nan bàyyi xel loolu te defar jikko yi Sëriñ Tuubaa def na ko misaal wax na ne Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas dafa wax ne ñetti jikkoo ngi nii yu nekkoon ca ceddo ya aljaahiliya islaama leen ci gën a yey ñetti jikkoo ngi nii nekkoon ca jaahiliya julli leen ci gën a yey ba ca njëkk mooy ku ci amaan gan la nga mën lépp ak loo mënut da nga koy def ci teral ko ngir teral ko ngir yàlla rek genn gan képp daana tax nit ki ak giléem genn gan képp daana tax nit ki reyu xabbon genn gan képp daana tax nit ki reyu gàtt-gàtt lool kuy mag sax fii miin nga ko ca sa baay wala ca sa maam fu mu amee gan jàpp gàtt ren di wala jàpp nag ren di teral gan bokk na ci yi nga xam ni jikko yu baax yi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fa andi woon sëy Sëriñ Tuubaa nee na Seydina Abdullah Abdullah nee na jaahiliya moom lañ gënoon a mane gan jaraloon na leen lu ne ngir bu demee rek bég te booba ñoom gëmuñu yàlla nee na loolu nag islaam ci gën a yey ñaareel ba mu ni ku ci masaan denc ci jigéen ba màggate ci say loxo duutoo ko wacc lu la mën a def ci àdduna da koy muñ ndax da koy jàppe kenn ci yow ngir kóllëre nga ngir bañ ko sacrifice bañ ko wacc muy sànk duutoo ko wacc mukk kóllëre nga koy jàppe ñetteel ba mu ni ku ci amaan dëkkandoo mu am bor bor ba ëpp ko doole duutoo am jàmm te yow bor ba boo ko mënee fay da nga koy fay boo ko mënta fay nga nga di ko reetaan nga di ko eh, eh, eh, jéebaane ànd ak koo ca mën a àndal ngeen fexe ba fayal ko bor booba ba mu gore ne yéen nee na ñetti jukki yi di koy ceddale ceddoyale wante nee na islaam ci gën a yey kon nanu bàyyi xel jikko yooyu ana jamono ji tey ana jamono ji tey ku fi ja ku fi ku fi teral gan jaralati dara ku fi am gan bu ñëwee sa kër la mu bàyyi këram rek la fi fekk ka ca mooy ko soppi tuuti ci cinam waaye leneen leneen amu ci la mu bàyyi këram rek la fay fekk gan yéemutul fenn ana jamono jii tey da nga gis ku denc jigéen am ak moom juróomi doom juróom-benni doom juróom-ñaari doom xëy wàcc ko xëy wàcc ko dàq ko génne ko sa kër boole ko ki doom wala nga téye doom doom ya ak tàggale ndey ak doomam ju ni mu xaraame te moo fees dell jamono ji ñu toll te ñàkk muñ rekk la ñàkk yor yu baax rekk la waaye su fekkoon te ni jikko yu baax yaa ngi fi kon de danañ yor jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam lu ko jigéen deful amut lu ko jigéen deflewul amut daana ñaw daana fasi dàll daana and daana daana dàqeeg sayyidatuna Aïsa di kuus ak moom ndaa ko maa la raw ak yaa raw am am am aw xew yëngu na ca ginnaaw kër ga Aïsa ne fi yoqeenu mu ne ko da ngaa bëgg a seetaan mu ne ko waaw mu tungoom ko tungoom ko muy seetaan di seen ba ni ko doyal na mu wàcc noonu la daan sallallahu alayhi wa sallam noonu la kenn defatu ko tey ku ci sa sa wax naa ne sa bët bi a ngi ci nga ni ko man góor laa dooma yëpp jënd jukko ji baax amatul ana ku ci jamono jii lu toll tey ku ci yitte wooti sa borub dëkkandoo ba di ko fayal amatul sa yoon niwu ci buñ ko yóbbu ca kaso ba it sa yoon du ci ne jikko yi amatut kon nag ba bakki bokk yi nan bàyyi xel jikko yi te defar ko te xam ni moo nuy sowe tey moo nuy sowe moo nuy sowe nee na ki ñaan am na juróomi mbugal yu muy teg nit ba ca njëkk mooy njàqare lu dul dog ndax li nga li li li sunu borom jox nit ko ba nga ko dëgg ñaan da ngay gis mu di ko am sab xol di xëtt te doo ca mën dara njàqare lu dul dog benn ñaareel ba mooy musiba moo xam ni kenn du la ca fay te sunu borom da yonente bi sallallahu alayhi def ni ab jullit saa su ko sunu borom tegee musiba doonte dégg gu ko jëm la fàggul na ko ci ci yiw loo xam ni boo ko xamoon dana xeeb li ko dal waaye nee na ki ki iñaan ki musiba mi ko dal kenn du ko ci fay ñetteel ba moo di soxtu rabb merum sunu borom sunu borom dalay mere te kat merum sunu borom lu mat a mooy tandiku la ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy tandiku leen merum yàlla ndax yàlla su meree day rëbb te rëbbum yàlla du yem ci borom day topp xeet day dem ba ca sa tëkki sa taat mooy tandiku merum yàlla te ki ñaan day jural nit ci merum yàlla ñeenteel ba mooy faatu bu yool sa bu yool doo ko am ndax lii li suñu borom jox jaam bi ba nga def koy ñaani boo ko ko yéene woon yàlla dala cay fay ñàkk ga nga ko ñàkk tax na soo yool booba moom moom faat na la doo bu rëy la nga ñàkk ko juróomeel ba mooy dañuy tëj sa bunti tawfiq loo ñu wutu doo ci jot wala yaasu billah nee na juróomeel ba mooy sa bunti tawfiq dañ koy tëj loo ndax loo yóotu yàlla ne la ba ma ko mayee diw kat da koy ñaana woon kon munoo cee jot dara doo ko jot bi ci yees te mujj ci mooy du yem ak yow ci li nga waroon a am mu di la ko xañ li nga waroon a am rek mu di la ko xañ du ca yem waaye la nga jotoon a am da la koy xañ ndax sallallahu alayhi wa kiñaan day lekk aw yiw ni sa war a di lekke mat kon yow yiw wa nga amoon bu ko kiñaan nga lekkee ba mu jeex te loo bëggatee am ñun la ko mën a am yàlla may la teg ca foo jëm wala iyaazu billah la kiñaan di jur yàlla ñu ci yàlla musal kon nag bokk yi nan defar jikko yi te dabaatal ko ci gone yi tàmbale ko ci gone yi nañ leen jàngal alquran nañ leen jàngal seen diine defal seeni jikko ba mu ëllëg si bu ñu la ñaanalee mu fekk la fa nga ne ëllëg si biir lu mu def ci yu mu fekk fa nga ne waaye nañ mooy tandi ko njàngum àdduna képp doomi jullit nga dugal ko ca école tubaab muy jàng àdduna képp du mën a xam faatee wala bu jàngee bu màggee mu di ko bind ci arafi tubaab di ko yàq loolu mooy të leen mooy tëddi ko leen ko nanu dugal doom yi ci alxuraan ñu jàng alxuraan jàng seen diine jàng ñu yar leen yarub diine yar leen yar bu baax bu buñ ca jógee lu ñu mën a jàng du leen wàññi dara yal na la yàlla jubal yal na la yàlla xiir ci njub yal na la yàlla tegal suñu tànk ci siraatal mustaqim alhamdulillahi alladi la tudrikuhu al-uyun wa la tumathiluhu az-zunun wa taahat fi kayfiyati azamatihi al-aarifun wa taxayyara fi azaliyatihi al-mutafakkirun wa la yuqbalu ayna kaana wa la kayfa kaana wa la mata kaana wa la ayna yakun أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي صرف به الأنبياء والمرسلون صلى الله عليهم وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فبالتقوى تدخلون الجنان وأنهاكم عن المعاصي فبالمعاصي تعذبون في النيران فاز المخفون وسبق الزاهدون والعابدون إلى أعلى منزل ومكان أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذكروا الله يذكركم ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين يغفر الله لي ولكم